Bonjour, Monsieur le Directeur Général et parrain de la cérémonie, Monsieur le Principal, chers professeurs, Monsieur le Directeur de l'école élémentaire avec votre équipe pédagogique, chers parents d'élèves, chers camarades élèves, c'est avec une grande joie que nous vous recevons dans notre établissement. Le groupe scolaire privé Serigne Cheikh, ses activités extramurales, Zina en herbe, l'épellation française, English Day, le théâtre. participe au développement du savoir-être et du savoir-faire des élèves. Ainsi, nous souhaitons que les élèves de l'établissement aiment leurs études, respectent leurs parents, leurs professeurs et visent l'excellence comme l'a toujours recommandé Gaïne Fatma. Nous remercions tous ceux qui est présent et ceux qui voulaient être présents mais finalement empêchés. Que cette finale soit belle, que le meilleur gagne et au finisse c'est l'école. Que l'année 2024 se termine en beauté. Merci ces encadreurs. Bonjour. Je me nomme Sodakan. Je, je, je, représente la classe 6e B. Je vais santé. Ya salam, Cheikh Bamba ya am salam, bari woor am ngandam, jaare naa la Bamba yaay kiram, doy nga ma Cheikh Bamba yow yaay gën di yamam yama gënal wurus ak ngalam gàcce Bamba am nga ndam Bamba yaaman sa de yaaman sa ginnaaw yaa déggoog sa borom loo ko mu ne loo ko wax ni waaw Cheikh Bamba sa waay du ñeewa yu du tiit ndax la ñu ragal nga ne ko coosan ni ba duñ ko gisaat yaa jox tarixay ganin kër diine eh. mooy na Isa in Mariama fan nga bokkeek Alaaji Maalik Si du fi bàyyi woo ma jërëjëf na saa yu ma jàkkee gis la dee gor war seede yàlla may na la Cheikh Bamba ay kiram yaa dem ñëw te gaañu ken gaañu la yaa wax kenn waxalu la jaloorey borom loo ko wax mu ni waaw li gën ci man yow yaa ci fees mooy xol yi daray àdduna safatuma lu ma ñàkk muñ ko du leen nag sa borom Cheikh Bamba mm-hmm. Cheikh Bamba yaa jaare jaam ñi Cheikh Bamba Cheikh Bamba yaay kër Cheikh Bamba te yow la ñu naan Cheikh Bamba yaa jaar jaam ñi murit yi jaan xaadar ak waalaayeen bamba ñepp la fi nekkal fi ne loon na ba tey masalikul jinaan yaa jër fusti te ci kaalaak sent nu mari ak i deew mam ca isa ba àgg ca yaa ummarohil maliki mbégtem basiru leeram nga ngay wandeelu sarna ba dugum makka ne leen ko càkk mooy almuntaxa dundal ba am ndam te ya fi mboppam de l'école privée Serigne Cheikh. Je suis venu ici pour rendre hommage à un professeur spécial qui se nomme Moussé Mbodj. Delloo njukkal Moussé Mbodj. Cher professeur Moussé nous, vos élèves, souhaitons vous exprimer notre gratitude, la plus sincère, pour tout ce que tu, vous avez fait pour nous. Vous êtes plus qu'un simple professeur. Vous êtes une source d'inspiration, un guide et un mentor dévoué. Chaque vendredi, sous la chaleur ardente, vous venez à l'école avec une énergie et une passion. Vous, nous avez appris bien plus que ce qui est inscrit dans les manuels scolaires. Grâce à vous, nous avons découvert l'art, du jeûne en herbe, la masse du théâtre et les calais pour devenir des leaders efficaces. Vous avez transformé nos, nos, en détermination et nos hésitations en certitude. Vous nous avez montré que la véritable leadership commence par la confiance en soi et le respect des autres. Vous nous avez donné les outils pour parler en public avec confiance et élégance, des compétences qui nous serviront tout au long de notre vie. Votre travail acharné et votre dévouement ne passe pas inaperçu. Nous tenons à ce que toute l'école et tous les dirigeants soient informés du travail remarquable que vous accomplissez, votre dévouement et votre amour pour l'enseignement ont profondément marqué chacun de nous. Vous avez su voir nous des potentiels que nous ignorons parfois nous-mêmes. Et vous avez travaillé sans relâche pour nous aider et les réaliser. Votre patience, votre encouragement et votre foi en nous, en nos capacités, nous ont permis de grandir et de nous surpasser en partageant votre savoir et votre esprit avec de temps de générosité. Vous avez façonné non seulement nos esprits, mais, nos, mais aussi nos cœurs. Nous vous devons beaucoup. Et c'est avec une immense reconnaissance que nous, que nous vous adressons ces quelques mots. Merci, Monsieur Mbot, pour votre dévouement, votre bienveillance et votre passion pour l'enseignement. Vous avez fait de nous des élèves plus éclairés et des individus plus confiants. Vous resterez à jamais gravés dans nos mémoires et nos cœurs.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 Sit down, please. Case number one. Education versus ordinary marriage. Which accused rights Your Honor, my client is an illiterate man. He can't speak English. He needs a translator. Okay, translator, we need your Here I am. raise your right hand and swear to tell the truth. The whole truth and nothing but the truth. nga waat ni doo fi wax dara lu dëgg te lépp loo fi wax dëgg lay doon maa ngi waat ci sama géño baay di yëkkati sama loxo ndeyjoor di waat ni lépp lu ma fi wax dëgg lay doon te du ma wax lu du dëgg do you know why are nee na ndax xam nga lan moo la fi déedéet well you are here because you you have accused of Yeri Meye's and it is forbidden by the law here in Sénégal. nee na li tax ñu andi la fii mooy dañ laa taxal mariage précoce te loolu yoon da koy tere. mariage précoce <laughs> man ma yaakaar ni ay musike ay musikeer yi nit distribué fii la moo tax ma ñëw fi ngeen am ay mariage précoce. if you are joking me I am not joking defense lawyer the flowers is yours. Thank you, Your Honor, for giving me the floor. Your Honor, dear Assistant Judge, dear audience, my client who is standing here in front of you today. Thank you, Your Honor. I was saying that my client's father, his grandfather, and even his great grandfather. Objection. Objection rejected. Please, let him finish. Go and defend lawyer. Your Honor, may I ask some question to my client? Of course, please do. ñaata jabar la sa baay mi ngi tolloon ci ñeenti soxna. how old was your mother when yaay ak sa papa bu ñuy sëy ñaata at sa yaay amoon. loolu moom seen yoon nekku ci. Silence, please. I have no more question, but know that my client is innocent. He is not guilty. Now, project the flowers is yours. Thank you, Your Honor, for giving me the floor. Your Honor, dear Assistant Judge, dear audience, this old man standing here in front of you is guilty of a crime which is early marriage. Objection. objection objection objection objection reject go in defense project Thank you, Your Honor, for giving me the floor. Never mind, I will show you the will proof. This old man has prevented his wife. Objection reject. Continue. Go ahead, prosecutor. From continuing her studies because of him, she has dropped her studies. she could have become his granddaughter. You will see her very soon. Objection. Objection. Take away. Calm down, Your Honor. Calm down, Your Honor. Calm down. Thank you, Your Honor. This brilliant girl could have become a lawyer like me or like the assistant judge. She could have become an, a doctor, an engineer, a member of parliament, a minister, or even a president. Okay. Your Honor, may I ask some question? Of course, please do. Please, Sergeant, bring her. Ah, three minutes. Wow. Madam, swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, and raise your right hand and say, I swear. I swear. Madam, how old are you? I'm 13 years old. <laughs> now every baby girl.

loolu laaj ko ko. Your Honor, I have no more questions, but my client is not guilty. Now, the will retreat for one minute and become to give the verdicts. Now, the court will The car will for it one, for one minute and you come to give the verdict. Sit down, please. Now, the cow is delivering the, the verdict with the verdict. After hearing the, prodict, the prosecutor and the defense lawyer, after hearing the accused and the witness, Considering the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination of Government ratified by Senegal. Considering the Convention of the Rights of the Child ratified by Senegal. Considering the African Charter and the Rights of Welfare of the Child ratified by Senegal. For this reason, besides that each old woman is guilty of yearly marriage. The floor is yours. The, flower is over. Hello everybody, my name is Merjok. I am in sixth and I am a girl schooling. Ladies and gentlemen, everyone has the right to education. Girl must go to school We should know girl schooling is very important for a country. If opportunity is given to girls to go to school, the benefits are incalculable. They can become very important person in the country. They can help solve problems and change the country. It ends as it is said, educate a boy and you will educate an individual, but educate a girl and you will educate a whole society. Dear parents, let us finish our studies, please. Thank you for your kind attention. la ilaha illallah wéy kii war naa ne mu mel ni ku mat nii. eh. jàppal xar mi ana xar buum bala moo dem jàppal buum xar bi. buum xar bala moo dem. yegg nga laa wax yow war ngaa fii di nelaw naa jàppal buum xar xam nga lan bu ma fontoo. nga jóg wuti xar xar bu da ngay tëdd fii mu lay teg si dégg nga ma yow li moo tax ma may yee ko waaw moo tax ma lay yee ndax yow da ngaa bett paral ñàkk say daal dafa càngaar du ma toog fii nag di la xaar nga ma indil ay melentaan ak ay kaña jugal nga wuti xar laa la wax ko teg l'islam tegu ko fa <laughs> fi ma ko ko fa nee nga def ko mënul nga toog xaar xam ne dañ laa bindu ci liste bi man maa jóobee wut noonu maa jóobee wut noonu da ngay jóg wuti xar laa la du ma dalaat de la ma daloon daal du ma dalaat damaa woyaana woyaana woyaan ba sama tànk xar man kenn xamatul lu may ndiroo jugal wuti xar laa la wax maa ngi nii sànq maa ngi tëdd jàpp sama buumu xar nga ñëw ni rek dóor ma xar mi dem da xam fan ngay jëlee xar rek da xam fan ngay jëlee xar man te du ma laa jënd du ma jëndaat ah loolu loolu la ñuy da ngaa ñàkk do tëdd fii naa da ngay wuti xar yaay fi nga jàpp foofu la li nga wax dëgg la papa yow sa xarum daaw ma dañ caa daanoo daanoo ba xalam dañ caa daanoo daanoo ba xalam xar moo xamante ne rey mu reyul mu dee sa mi ba nga ko reyee toog nañ dix minutes génnewul ndox génnewul deret yow noppi laajuma yow nag yaa ngi may bëgg a yem man sa borom kër laa boo ma mënta respect nga wax ma ko léegi ma delloo jëla say mbokk yaa ngi may ko wayaan googu nga wax na maa la ko gën a def fuuf man damaa wayaana wayaana wayaan ba samay jarax dag ma jël ay pont di ko si jàpp pour mën a wayaan maa la dàq wayaan yow nag yow ku na laa fekk nga yow fii sa xar mu sama kuy yaa fii ànd ba ànd doomu siñ musaari bi ko doomam ci indi lee xar mu béjjë bi xajul woon si koñ béjjë bi xajul ci koñ xar mi Eh, aéroport lañ ko mën a yóbbu ndax aju aju yow nag am mbote sax mën a loolu paaka bi nga daan jëm nga ko sa bopp yaay ñaan ku jëm toogal ko man nag maa ngi dem maa ngi ñëw tabaski bi nu ma ko mënee rek ak nu ma neexee laa koy def ah kon de nga fi fekk boo fi indee xar wala béy yéen ñaare ànd génn yaa taxawal sànq ba léegi yéen nga wax xar waaye waxoo leen si man yéen man ngeen sax tabaski ngeen di ma maylus di ma maylus di ma maylus rek tey du ngeen ma gis ne sax sama morom yëpp dañuy gis ne da ngeen ngeen di ma maylus rek ah. yow eh laajuma la yow ñàkk jot ndax ñun ñëpp ñu ngi xale yi bañ xale yu baax yi bañ yeewoo ca fajar dañoo liggéey nga ni matt fii ba pare dama laaj ay ay jasne rek ay may yow ñàkk jom nga toogal fii rek ndax yow man sax damaa rus bu nit ñi jëli seen bilité yaay yi bu ñuy jëli seen bilité man kase maa jay am gàcca nga may indil ay moyen 3 te man xanaa xamoo ni man ba ma cay toll ku meilleur laa woon ndax man ay moyen 2 laa daan indi boo demee xëy privé service boo na ma fa naan ma naan ma daan am di ma di ma sarga waaye yow bu ñàkk jom nga ba ma cay toll damaa mënoon a jàng ku ma room ma room ñu naan man ka mën a jàng ne waaye yow doog a foofu ak say moyen mu la jëriñ yow tamit yaay. loolu naa leen dafa kii dafa kii daanu de. maa ma jéem a woo sax président Diouf mu sagal ma tuuti sax. abab garankan di ñoo lakk ci mànd bi seen ay. place fukki jaay nag. Eh, may ma may ma alors président Diouf naka def. ah waaw gën naa laa déggoo wax dëgg fa yàlla moom waaw da ngay xam ne situation bi rek waaw da nga ko boole teg ah. <laughs> li ma doon wutee ba tiiri ah da nga ko nu mu koy ah, yow mii xamu loo aji ma la ko jëm montagne dagaj laa wax ñu mënewu ma ko laa jàmm laa moon daaw tabaski daaw daa maa ren yow xanaa bala ngaa fàjj fàjj ñëw nga nuyoo damaa talul nuyoo laa wax daaw noo dem indil ma fii xar ma nga xam ne sii xaru mooma nga may indil daaw daaw jege ma xari amul ay xuur loolu du ma ko digg daaw ma ne ndax tabaski tabaski yu mat jàmm eh, tabaski ren la ko lislaam teg fu la ko lislaam teg ah man de sonn naa yëpp yëpp gi bëgg maa wàcc doo ma ma sonn naa rek déggul daaw lii nga def jël sa xarum baax dem jox sa jeeg dama eh, ban jeeg ban jeeg ma ne wax ji àgg du ko moom soxna la. vraiment vraiment nag papa vraiment wax na dëgg de kii. yow damaa bëgg su may waxee sa ndey nga génn. nee naa la sama ndey wax ak moom. booy wax ak wax ak moom si njëkk. yow wax na dëgg laa soo ma wëriñu góor ñu baax ñi yëpp angloo ang mbeddoo mbedd kilifa yu baax yëpp a ngi yow. yéen tabaski wóor man maa leen yóbbaale. man maa tabaski waaye yéen tabaski wóor mani daa fekk ma am bari xar mu ndaw mu mënut a yóbbaale kenn papa man dëgg ndaw fi nga indi xar wàcce nga si oto bi xar mu mbéwut ñu dugal ko si biir kër gi xar mu mbéwut ñu tag ko xar mu ba ni ñu koy rey xar man xar la ah da ngaa bëgg a wax daal da ngaa bëgg a wax daal man xarum muuma laa fi andi woon yow ah xarum muuma waaw baax na yow sama moytu parce que yaa ma gën a sonal yow danga ma mën la ma bàyyi ma envoyé tuuti yéen ngir yàlla waaye yow da ngaa soof waay oh, oh, oh, waaye ki dafa soof siñ jaam ki dafa soof waay siñ ñàkk jom nga la ma wëcc ca kër gaayam seen kanam yu eggut yi yéen yàlla eggalewul seen dara ñàkk ngeen jom lool lii rek ngeen mën seen baay bu ñu waxee benn ngeen wax fukk bu ñu ñëwee fukk ngeen ni un million. dalu leen laa lu leen di jariñ eh jugal may maag sa bàyyi damay waxtaan ak moom. waa seet mayo waaw laajal sama papa ba xam dafa nugutul sama yaay wala. yow dégg nga kii booy bi question bi mu posé la yow kii xanaa dafa bëgg a am ko gis nga. man ñii dama waxu seen wax yàlla wu seen dara ñii bu leen topp doo tabaski doo def dara man gis nga loolu dama fee indiwoon tabaski ren jii moom laa lay wax laa wax. démb yaa maa ngi jógee ca kër ga. waaw soxna Ndeye lu ma yëkkut tey amul xar mi fi indi woon daaw génnewul deret ak. génnewut boisson lu leen làmmiñam wi laal naan ma indi fi mboteeg indi fi lii. yow man maa la gën a teelee. ah xaru muuma lañ ma wax ah. waaye man sama xaru sama xar moom benn benn yoon benn a waaw waaw xaw ma ne sama saa xar génn la te rek. waaye benn waaye man muuma. waaw daa génn sa man sa yëfi ñàkk fayda yi sax dama cee nekk. ma ni tabaski ren bii niñ koy lijjantee. lañ wax. dugal dugal dugal dugal. buñ nañ seeti suñu mbokk géer yu baax dinañ ko maa ngay def soda soda soda soda yow yaay suñu xarit doo fi ñaawee soda soda soda soda yow yaay suñu xarit doo fi ñaawee toog leen macha allah suñu géer bu baax bi sama géer yu baax xam nga leen fi ñaaw ñoo bëgg maa ngi ci jàmm jàmm bu baax xaaral ma bi ma may leen lu seet te ñëw waaw baax na ñu ngi lay xaar gis nga yow fi ñu ko téye foofu la bul bàyyi bul. noonu la ñun mën a def ba lijjanti xaalis ba na génn. waaw bàyyi loolu la. ah Soda Soda Soda. Soda yow yaay suñu xarit doo fi ñaay. Soda Soda Soda. lii moom daal lu ma ciy def moom xaaral ma ñëw rek. tàmm ngoo ko tàmm ngoo ko tàmm ngoo ko. moo tax ma lu mu naat maa daa bu ko def na yib bu ko def maa lu mu naat maa lu mu naat waa ñoo fi xolal soda doole sedd bu ndaw xajoo si poos kenn du la si dugal bu la bon sa jam waaw waaw waaw waaw dañoo ñëw ba ngay seeti la nga xam nga ni heure bu jàngale rek bu ñëwee suñu baajo aaj waaw waaw waaw waaw waaw moom daa xam lu baax. cak cak cak cak cak cak benn junni cak cak cak cak cak cak ñaari junni cak cak cak cak cak cak ñeenti junni cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak vingt mille cak cak cak cak bul wàllu bul wàllu tàmm nañ ko waaw waaw heure bu ñu ñëwee mi teral ñu. billaay amuñu sa bay. indi li. ci man nag da maa bëgg a jàpp da ni nga yore sa kër loolu laa yore sa kër teel li nga yor ma teel li ma yor. ah ku ne a teel lim yor. waaw kay na bu dee léegi noonu la demee mafia bi da ngay trahir mafia. xale amul mafia bi xaalis xaalis la. da nga xam ne man bandi ga ma nekkoon maa ngi ba léegi. xale xale xale yow wuyu woo wuyu woo bandi woo. ah baax rek ñoo ngi dem nag. ñoo ngi dem Soda eh, bilaay ñoo ngi dem. rukindal rukindal rukindal dem. Eh, Thank you. loola. ah yéen ñu koy defee. yéen daal yéen maa leen jaamu de yéen maa leen maa doon jaamu. maa leen maa doon jaamu jaan jàpp ko daal bu ngeen jàpp. wuy sama bete bere wa. ñu ko wuy sama bete bere wa. wuy ay sama bete bere wa waay. yéen yéen bete bere. sama bete bere mbokk na. yéen yéen des na gërel. bete bere. sama day bete bere. dañ ñuy yóbbu aar nañ jëm gaaw. waaw daa am tabax xaalis ba am. waaw. la nga ni woon ku nekk na jël sa yoonu ma dem sama kii foo mu dëgër foo jàpp mu dëgër ah tey de jaaxle naa moom. fa dëgg fa yàlla xaaral sax mu dimbali ma sax. ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ma ne sallallahu alayhi wa sallam ceeb ak diw jeex daay ceeb ak diw jeex dee ma ne jaay loolu mën a la a nekk sama sama bopp fi mu dee mën na nekk tabaski lu mën a tey ah waa léegi kañ dem dagaj dégg naa dee bu soobee sa sarax sa waa demal ci lii kon kenn du ma tiital ba maa tiital ma tiital kenn du ma tiital. ay papa am sama naatal naa maama ko mu di yoo laa fi naatal nga maama am loo koy wax xaaral ñu fekk la foofu. man man. <laughs> jàng soof na da ngay jàng est ñu indi la ouest nga jàng nga jàng est ñu indi la ouest nga jàng Guinée ñu indi la Conakry lii mooy lan nag ah man de sonn naa saye boo nag ma ma jàng di jàng rek mënu am moyen bu baax saa ma ñëwee kenn ma félicité moyen trois ni mu baaxee kenn ma félicité lii nag dafa metti ah damaa sonn si jàng sama papa am na lu mu indi. yow yaay doon soxal loolu sama papa indi na xar rek moo gën a naan am na lu mu indi. yow eh taxawal. yaa ngi taxaw dem naa. waaye Omar yow yow yow li nga loo fi indi nii. li ma fi indi ngay laaj lii muus la muus. laa ilaha illallah. allahuma xuyum xuyum waaye sa xar mi di mel ni ku sida. xar mi xar mi xar mi daa sida. wala yaa eh, sanguloo ma la xëppuloo ma la ndox sa maylus baa ngi nii na. yowee eh, gis xar mi du ma ko war na di dee di ànd moom di. yow papa maylus la di sida. Eh, maylus bi hmm, moom laa am soo ko bëggee nga jël soo ko bëggut mat. moo ci xar mi rek ñu ne ko bëgg def gis nga yow xaw ma da ngay jëlale xaw ma waaye xar mi yéen ñaari ànd ngeen génn kër gi. gis nga xar mi xar mi nee nga dafa choléra sida jaare asma loolu lépp da ko boole tey moom ngay tabaskee. aywa boo ko tabaskee wu naa xar keroog jënd naa xar di melo nga ñëw fexe ba yóbbu ko deuxième xar a ngi nii troisième am. yow xam nga dala kat bi suñu taali dala kat bi suñu taali am nga ko place gis nga xar mi du ma ko lekk di di di ree du ma ko lekk di jooy te xar mi nga xam ne su ma ko lekkee ànd ak moom choléra wala ma jaare wala biir buy dal ah. du ma ko def toogal ko yaa xar may xam def leen maa ngi dem te maa ngi ñëwaat fii ak deux heures su ma ñëwee fekk xar mi wala lu jàpp ko ndox lu jàpp dama lay rey sa xar mu tilim bii de man maa ci koy sang xar mu tilim mii ah amoo. eh eh wal ma fee àggale mu indi ma xar wala bàyyi man dinaa wër wër naa ku ma indi sama xar gis nga gétt gi xaaral gétt damay dem jël fas ko sagar laay jël fas ko ba mu dëgër may ma ma ñu yóbbu leen yóbbu dinaa ko sang. <laughs> ay waay sama papa bu ñëwee lu ma koy wax <laughs> papa bu ñëwee lan laa wax man <laughs> nee na tuuti yaa ngi ci jàmm yaa ngi ah. looy jooy looy jooy jooy ma ne jooy ma bi moo la du loolu de papa yàlla doom loolu laa am de. bëgg sax. surprise. <laughs> Eh, ma fii maa la jur bërëg ndaj bëtëg bëccëgu ndara gàmm nga bëgg maa dofloo lan ngay jooy da ngaa déedéet. moom amul fi dóor na ma de. da ngaa bëgg a dem duus. militaire bu ma bëggoon dinaa dem. ah. doom bu ma tiital looy jooy. ah ah euh, ah euh, ana papa. barki yàlla. benn pot laa ko xëpp benn pot mu dee benn pot dong pot bu ndaw sax moom laa ko xëpp mu dee. yow benn potu ndox potu ndaa potu ndaa nga xam ne waa dëkk bépp. déedéet dundaa dundaa papa dundaa. yow yow da da da ngaa sënk xar bi. papa sax mu ko benn pot laa xam naa man ca naajoo moom man ca naajoo di weere. daa dee. daa faa laaj. daa dee. waaye suuloo leen ko moom suuloo bu yàgg papa ah da nga doon gaaw gaaw lu yaakaar ni du ma ñëw man mi jënd sama xar ñaari junni nga yaakaar ni da ngay gaaw gaawlu ba du ma bu ma ñëwee du xam ne sama xar yow nag indi ani maylus lépp ngay indi ani maylus bi. ba mu dee ba dugg sa biir taal ba. daaru yi daaru moo tax papa ay. bu ma génnee dama koy saraxe. yow tay carax sax doo ko sax yow da rey xan yow nag xamal ni tay la sa bisu dee jàppal ni bis ni ki tay maay Ibrahima yaay Isla Ismaïl tay dama tay dama lay tabaskee yow may ma ma. papa dama la fi xaar dama la fi xaar papa. ab seen chaîne wilaya tv gaaw leen gaaw ngeen aboni bés leen cloche bi ngeen doon membre ba faw dara leen umpati si information général rawat na lépp lu jëm si wàllub diini